alors Viviane tey Dakar Arena. tay premier artiste dëgg fii feesal ko def ko nii nan ngay ban appréciation nga xanaa di kontaan rek euh, di sant yàlla encore euh, liñ naan euh, sama frère du ma ne guléet ndax def na ko fépp ci àddina donc tey li mu wax léegi rek ci seen bi ni bi ñu taxawee arena lu bëri la ko rappelé mu ne ko dëgg la lu bëri la ñu rappelé euh, parce que man sama jeunesse yëpp ma nekk xale dama ko nekk yu su nekk ci seen yu mag yi donc euh, defe naa tey mu def euh, arena mu am lii duñ ne guleet du def rek lu dul ñaanal ko sunu borom bi nag mu yàgg fi torop torop torop te wér. yaakaar ne ubbi na porte pour artistes yi yëpp yu fi bëggoon tëgg ba ubbi na porte bi daal ngénte na ko may na fit ñëpp. waaw ngénte na ko nag moom ngénte na ko macha allah te yaakaar naa ne moom. Ah, lu ñuy def rek lu dul topp ci ginnaawam rek topp ci ginnaawam def li muy def. yaakaar nañ benn jour di nga ñëw tamit. ah incha allah xam nga àddina moom nii la rek addina moom <clears throat> il faut ngay ah, jël ay risques boo bëggee yegg fu sori il faut ngay xam nga euh, ñeme ni sama waa ji sama frère bi ni mu ñeme. 2021 bi tamit ñeme nga ko marqué nga ko jigéen bu ko gën a marqué mën naa wax ci chanteuse yi ci ay it yoo ñu tàmmal yoo ñu ko génneel variété yu bëri 2021 bi nan nga koy tënkee waaw xanaa kontaan di remercier waat Sénégal euh, di leen wax nag di leen souhaiter une bonne heureuse année di leen ñaanal année bii nga xamante ni nag moom la ñuy dugg mu dàq bi yi ñu weesu yëpp ñëpp nekk ci jàmm di ñaan feebar bi dem ah di ñaan euh, vraiment euh, xéewal gu bëri bu saawaan baawaan ah te bu ñëwee ñun ñëpp ñu fekkee tal voilà. Sénégal remercier fans yi ah. solo 30 waa 30 dañuy wàññi léegi. Ah. waaw léegi 28 la. rek forever young moo nekk nii sama secret. merci